jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi fii taxaw ak ki nga xamante ni mooy Jamaïcain Jamaïcain nag moo koy wax dama naan promoteur wu Sénégal Gambia ndax euh, gis nañ ko dem na fee ca Gambie dafa ay journée am dellu wala ñëw fii ci diggante ki nga xamante ni mooy Baye Mandione ak Xoyantaan Baye Mandione nag ñëwoon na fi ak Xoyantaan doon def seen jàkkaarloo wala boog seen signature ñoom ñaar jël nañ ki nga xamante ni nii mooy Xoyantaan Baye ñu dañoo xaw a fekk mu dem mais jam nuyu naa maa lay fay Ousseyn fay. di la ziar bu baax a baax di la nuyu di nuyu sa caméraman di nuyu ñuy suivre ci wasaare yëpp. Euh, tey ñu ñëw gis la nga andi ki nga xamante ni mooy Baye Mandione Xoyantaan tëggoon nga ko fee ci gàmm bi euh, daggal bi du ma ko dagg dama koy dagg doo ko dagg yooyu moo yàqoon làmb ji nga gis ne amateur yi nañu làmb jooju te doyaluñ ci woon nga andi laatal na ko bii Sénégal lan nga ci nar bés boobu. waaw làmb la ci biir làmb yi rek Baye Mandione Xoyantaan ay champion lañ combat boo xam ne la mën nañu wax ne mooy combat bi gën a rëy ndax combat ñaari réew la. combat yi bëri na lool waaye combat bu seq bu ñaari réew seq amul bii rek la moo tax tey ñu indil ko askan wi askan wi ñoo ko loon xaar ñoom ñaar dafa a leer bu ñu bëree Gambie yeggul dafa jaadu pour ñu indi ko senegal pour mu yàgg. Hmm. ñu gis ne doon nañ def léegi signature bi bi ñaari mbër ñëwee bi ñu leen gisee ak bi ñu leen gisee woon jour bi leen woon tëgg ñoom ñaar lan nga jàngee ci ñoom. waaw ute na ñoom ñaar yëpp ku nekk am nga yokkute boo xoolee xoyantaan bi doon bëreeg bàyyi ma ñoon ak ma ñoon tay ñoom ñaar yëpp ute nekk am nga loo yokk seen niveau yokk ko say miskil yokk ko sa doxalin. Hmm. ñu gis la da nga daan boo daan tëgg Gambie da nga daan jël mbayu Sénégal yóbbu Gambie ngaa ngi tëggee Sénégal jëlee mbayu Gambie andi ko ci boobu nga yem wala di nga jëlaat mbayu Gambie andi leen ñëw tëgg leen fi. waaw lépp bor fay bor rek mbaru Sénégal ñoo doon dem Gambie di fekk mbaru Gambie dañu war a ñëw Sénégal di fekk Sénégal ren moom décision boobu laa jël combat mbaru Gambie bu may tëgg da ngay jógee foofu ñoo fekk ci mbaru Sénégal. ambiance lan nga lan lan nga ñu naral ambiance bés ba. waaw lu kenn xaj na combat yi ngeen doon dund fii ak aada ak cosaanu Sénégal ngeen doon gis bii nag aada ak cosaanu Gambie dina ñëw fekk si aada ak cosaanu Sénégal ñaar yooyu su ngeen leen boolee ci benn bés ah wax yàlla day ala dawme rek. mais mais bu weesoo boobu combat yaa ngi doxaat neen wala ci boobu nga yemagum fi mu toll nii. waaw am na bu may dox nii xam naa mun naa mu sotti feeg suba pour tëgg ko Iba Mar la 14 août incha allah. maa ngi kontaan ci yow di la jaajëfal baax. maa ngi lay jaajëfal di la nuyu di nuyu waa yëpp di nuyu sa caméraman di nuyu directeur ñoom Diéli ñoom Bas képp ku nekk wasaar rek ñu ngi lay ziar bu baax a baax Ouzin di nuyu nag waa Cawkunda fële ca Gàmbi nga xam ne tey ni ma def nii ñoo ma ko def ñoo ma solal si saxo di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam. kontaan naa ci yow